sinon nag bi su yegsee doo ko laal de. nag bi dañuy waxtaan rek suñu paa waa koñ laa non dañuy maslaa rek. te loo si xamul nag. Mhm. sama grande sœur bi nga xamante ne mooy Sali. Mhm. secret de beauté sànq daf maa message ne ma aarak. Ah, mhm. dafa mel ni da ngaa sonn. may naa la benn massage. Oh. séance de massage boobu. man tegaat naa ko ci plateau bi mayaat ko téléspectateur. nu mu tudd ma généreuse. Sali secret de beauté. ndaw lu ne. ñu ne a ah, kookoy borom secret de beauté. nga ni ma. Sali lu mu def ñu ne Sali loo maye ñu ne ah mbay sa dëgg-dëgg maye Sali maye na bon ñu ne bon lan la ñu ne bon massage ñu ne massage pour homme ñu ne ah mbay sa dëgg-dëgg ak massage pour femme Sali tu es content on est content vive la 2STV vive Takira ha ha mbay ka dëgg-dëgg vive les techniciens. waaw waaw doxalal doxalal waaye demal. taxawal taxawal taxawal. dem ma baal li lay dëkk ak yow yow chaque jour. ak fu bees fooy génn. demal ma baal yow kii tu. non mais mais ma baal la kii tu. jàllale ma information bii loolu lan lañ wax foofu. maa ngi xaru. lan lan la ma information damay xaru. Mhm. alors comme ni nga ko gisee ah. waaw.